këpp kees dem seen yoon yu ndaw ndawaan yooyu boo ko jëlee di ko yóbbu tribunal da nga dem ba nga xam li nga ci fay fa avocat sax moo gën a bari nga mujj ko bàyyi xamal nañ ñun perte nañ ci parce que lu jóge ay 3 milliards et quelque milliards et dañ ci perte parce que ubbi woon nañ ay usibité yu bëri ay prix du ay yu bari tandis que nag bon xam nga lenn lu ne. taxe yee bari woon. non non du taxe du taxe mm-hmm. mooy gestion bi gestion bi. mooy gestion bi. xëy na ñun dañoo dañ ko waroon a gérer xëy na ni ko Auchan di gérer. moomal ko suñ bopp. Mhm. xëy na foofu leen raté. waaye ñun raté nañ ci waaye dañu yaakaar ne c'est une expérience de plus. Mhm. Mhm. ñun dañuy wax ne saa yoo juumee ci dara c'est une de plus. parce que Allemagne dañ ko xëy bombardé ba mu nekk poudre Japon noonu mais jogaat nañ dégg jogaat nañ Rwanda gi dañ ko xëy. lépp di jógaan nañ kon man dama jàpp ne Sénégal sax waruñu toog rek naan tubaab bi raw nañ ñu lii mënatuñ ci dañu war a toog nag ne attends nañ dawe ji nag gis nga olof Njaay nee na bu déggee ba mu yàgg ñu ne wàññiku leen ñi jiitu ñu nekkoon gannaaw ñoo jiitu hmm. Afrique bu wàññikoo rek jiitu buy wàññiku suba dans cinq ans mu jiitu hmm. waaye bu wàññikuwul nag ah, ma nga ca gannaaw di topp rek ah cinq ans tuuti na <laughs> man maa la ko wax développement hmm. développement ci ay ci ay un an deux ans lañ koy pousser mu dem hmm. lañ koy def ah, yaakaar gi deux ans maximum ah, il faut ay njiitam il am mu am ay njiit waaw mais bien sûr loolu loo mën a gis kay ay njiit la loo mën a gis ay njiit la mu am ay njiit xoolal dama lay wax mu am ay njiit hmm. mu am tamit population bu pare pour changer man am naa ci expérience da ngeen ci ñëw ci Kaolack léegi j'étais prêt à changer. dinañ ci ñëw danaa ci ñëw dama lay wax dama pare woon changer. Hmm. mais tey bu fekkoon tey damaa am post ministre bu may wagar wala post directeur bu may wagar wala post politique bu may wagar. Hmm. du ma du ma avancé reculer naa bu yàgg. Hmm. daw naa bu yàgg. loolu nag daf ci am importance monsieur le maire man li ma bëgg ndax nit ñi ci seen bopp ñooy gën a bañ changement. dama bëggoon remonter tuuti ci secteur privé bi ñu doon wax. yenn marché xam nga yaa ngi koy wax c'est vrai que am na yoo xamante ne am na fi ndax gis nañu également Abdoulaye Sylla euh, Abdoulaye Sylla bu Ecotra xam nga moom it euh, def na benn euh, patronat boo xamante ni c'est pas la même chose ak fii muy deux groupes yoo xamante ni yu parallèle am fii ñoo xamante ni ñu ngi foofu regroupé wu ce qui est différent des autres mais tey jii marché bi ñu gis ni sax moom am na benn marché boo xam ni levé woon na ko ou bien woon na ko ci marché bu état doon jox benn français à hauteur de je sais pas combien ñu gis ni non seulement niñ ko doxalee sax jaarul ci yoon déjà donc c'est des choses yoo xam ni ça arrive par exemple sànq yaa ngi koy wax nga ni dina am par fois koo xamante ni par exemple dangeen di xamante ngeen nekk ay xarit benn marché benn appel d'offre am nga wax ko pour mu souscrire ci loolu or souscription boobu li nga ciy séntu mooy après ngeen am lu ñu seddoo xam nga loolu yëpp aussi day yàq li nga xamante ni moo di cette expertise locale bi man maa ko wax kay lu leer laa wax aussi loolu ma ni loolu aussi day day participer ci chambouler également euh, li nga xamante ni moom mooy expertise locale bi nga xamante ni au lieu que ñu jox ko les nationaux ñu préférer les étrangers waaw xam nga ñun si ñun dañoo amoon dañoo am benn chance boo xam ne nii dañ ko fee fekk mhm. muy bi indépendance amee dañoo tubaab bi dañoo wàcc ak lu ñuy tuddee chambre de commerce chambre de commerce la patrona patronat public. Mm-hmm. mooy patronat public li dul di def loolu la chambre di def waaye mënoo xëy xëy kariyal ko sa bopp dafa am réglementation bu compliqué bu ko ëmb boo xam ne c'est mondial. Mm-hmm. mooy ki pour nga mën a woote ci chambre de commerce da ngay identifier bu baax ne opérateur économique nga. dem fay say taxes doog di am droit d'inscription ñooñ ñoo war a tànn ci secteur yi de tànn ñu représenter secteur privé fii affaire bi ratee ndax yi ngay dégg yëpp ay association nangam yaakaar naa ba soixante-dix amul benn entité moo fi nekk chambre de commerce représente l'ensemble de secteur privé état bi lu mu am laaj ko lu mu soxla laaj ko lu muy def jox ko ko ne ko am jox naa leen lii dem leen ngeen waxtaane ko seen biir mm-hmm. bi fa tubaab yi nekkee loolu lañ doon def looloo taxoon économie tubaab yi ak naar yi am doole bi mu fi jógee ñun ñu jox ko sénégalais <coughs> ah biñ koy jox sénégalais yi joxuñ ko sénégalais homme d'affaires parce que homme d'affaires yi bariwul woon temps boobu mm-hmm. mais dañ ko xaw a jox ay politiciens je parce que ku seetaan film xala mm-hmm. soo gisee début bi dangay gis séquence bi ci njëkk nan lañ transformer chambre de commerce à des politiciens. qui ont changé débat bi nekk fa di wax ay affaire takk jabar ak ay affaire nangam ak nangam. Mhm. loolu dafa am solo sénégalais yi di xool lu am solo gis nga man dafa am ñetti film yoo xam ne nii dama koy seetaan tout le temps. Mhm. benn bi mooy xala wàllu économie benn bi mooy gelwaar ci société bi benn bi mooy dañ koy fàtte mooy un DG peut cacher un autre. Mhm. un film qui est qui très important RTS moo ko produir man RTS laa ko seetaane mais tey maa ngi défier gars yi ku ko tegaatoon suba ko ko tegaatoon suba bawutul gars daal sa kaw. parce que dafa mel ne réalité bi la réalité bi bi ñu doon wax. Mm-hmm. dafa mel ne tey dafa gën a yokk. Mm-hmm. dégg nga léegi nag loolu bi mu amee ñu bàyyi nag léegi sëriñ boobu bu amoon marché ci état ba mu yàgg amatu ko rek mu xëy xëy suba rek na damay créer sama association des nangam ak nangam. am na ñoo xam ne nii dañ ko créer pour defar am na ñoo xam ne dañoo sentir un peu euh, dañoo sentir dañoo sentir un peu ne affaire doxuñ dem créer ko léegi nag loolu bu amee multitude amu fi li fi am kenn xamul na la parce que même loi moo ko créé ah, bi bi créer bu Ablaye Cissé moo reconnaître benn CNP bi euh, association commerçant des ambulants benn loi moo ko reconnaître mm. mais loi boobu nag ils la même catégorie su président wootee di wax ñëpp la war a woo est-ce que président mën na woo 2000 personnes kenn ku ne mu la nangam la waroon mooy ñoom ci chambre de commerce la ñu aju. Mm-hmm. ku ci représentative dafa mel ne comme assemblée nationale parti politique yi bari na de waaye bu élection législative yi ba pare parti représentative rek nekk mm-hmm. bu ñu amee loi bu ñuy wax ñoom lañ koy jox boo amee dialogue dëggantaan dialogue institutionnel mm-hmm. loi assemblée moo koy def léegi nag loolu nag lañ ñun man ci laay xeex boobu ba léegi. man mënoon naa créer sama sama eh, sama organisation mënoon naa ko mais defuma ko ci laay xeex état bi jox ko benn reconnaissance pour que chambre de commerce yi mën a mën a taxaw te loolu soo demee ci Sénégal étude yi état bi def lépp am na benn étude bu ñu def 2017 biñ seetee institut yi nekk fii yëpp kan la ci opérateur kan moo ci ëpp efficacité ci opérateur yi c'est la chambre de commerce moo jiitu 17 pour cent chambre de métier ñëw 11 pour cent yi ngay dégg ñu naan la ADP mag APEX yooyu yëpp ay 6 pour cent ay 5 pour cent la yam xam nga lu tax mhm. fii acteurs yi ñoo koy gérer seen bopp li ma la wax mhm. suñ jëloon tey yi ñoo koy gérer seen mais boo jëlee ay fonctionnaires ñuy gérer luy appuyer entreprise dañuy wax rek di théorie mais xamuñ ko mais chambre de commerce dañ koo négliger loolu lañ gis parce que lu si mel ni yow Euh, mën naa ne ci deux 2014 la sa mandat jeex normalement sax waroon ngeen def élection renouvelée la qu'est-ce qui tarde il aussi de réforme mais dafa mel ni ne am na si ñenn ñi ci acteurs yi ñoo xam ne nii dafa mel ne réforme yi arrangé wu leen. waaw loolu dëgg la waaye dafa am autorité xam nga tey état mun a wax INACO ne ko foo jaar nga réformer mënu ko mun ta wax INACO ne ko foo jaar nga def assemblée. mais l'État moo am obligation mm-hmm. moo am loxo pour réformer chambre moo am obligation pour organiser élection ñun amuñ ci benn kii mm-hmm. lu tax mu të te ah, am waaw mais convoqué le ministre du commerce nga laaj ko <laughs> ah, mais yéen. non non ñun duñ ci dara ñun. du ngeen si dara état moo leen war a ko dara état bi moo koy convoqué yéen vous êtes par exemple instant yi nii. du ma ne xoolal man élection rek laa bëgg. parce que 2014 ba. waaw nee naa la mënuñ ci dara mi ngi mel na suñ mandat maire yi ëllëg bu jeexee. état bi toog deful élection maire yi lan lañ ci man dañuy prorogé dem wàcc ko fi mënuñ ci dara. mais mënoo leen ko soññu tamit ngir mu mu ñëw. <laughs> ñaata yoon laa ko wax fii du daawoon na lu tax. lu tax carrément lépp état gars yi nanguwuñu nanguwuñu mu ñun ñoo koy nangu ñun ko ko ci nangu neen am nañu ku ko ci nangul tamit état moo am dernier mot. yow nangu nga ko. mais bien sûr ñaata yoon nga ma dégg ma wax ko. Mm. man kay wax naa ko ba tey. Mm. Mm. parce que ñun réforme yi moo ñu arrangé. xam nga réforme yi lan lañ ci bëgg mooy état bi jël chambre de commerce yi gën ko jox doole pour intérêt parce que tey aujourd'hui mooy li ma la wax tasaaroo gi dafa bari tasaaroo gi soo nee association des ambulants ñaat association des ambulants nga gis. mais diviser pour mieux régner état moo ciy gagné. looloo tax non xam nga loolu. Hmm. c'était du temps de l'esclavage c'était du temps de colonisation je divise pour mieux régner. nga foog ni amul ba tey. non non tey man li ma gëm. Hmm. li ma gëm. Hmm. mooy tey boo bëggee gérer parce que bokkutul régner wuñ tey règne amatul. gestion moo am ku bëgg a tamit da ngay sonal sa bopp loo ci génn. parce que bi démocratie amee la diviser pour mais mieux régner génn parce que boo diviser tamit bu de bu électorat jotee mu fee bu njëkk moo amoon dictature moo amoon mais naa diviser pour kenn du wax ku yëngatu ñuy dóoral ma lii mooy comme ni tubaab bi defoon rek bi ñëwee ñan ñoo doon euh, doon def rek tubaab bi fole lay taxaw dem jël xeet wi dóor ci xeet wi dóor ci xeet wi parce que y avait pas de démocratie. on fait révolu mais bien sûr diviser pour minerais yi doxatul. expression bi foofu la jógee. mais nag affaire tubaab la. waaw affaire tubaab la mais affaire ñun waratuñoo wax sax loolu waratu waratuñoo fekk tey benn situation danga nga koy régler réglementé ko ba nit ñi soo ci liggéeyee ñu mën ci teg sa bët. Mhm. parce que boo ko deful tamit ëllëg bu élection amee danañ la danañ danañ la sanctionné gis nañ ñaata maire ñoo fi nekkoon tey. nga leen di tàcc guddeeg bëccëg fu ñu génn ñu ne nangam ak nangam waa ji moo am doole mais bi élection yi amee kenn moo jógee fële. Mhm. koo xam ne kenn xamu ko gagné lu tax. il divisait pour mieux régner maintenant le résultat c'est que euh, euh, comme dugg nga ci euh, mbiru chambre de commerce merci Mame Khady Diéry Fall d'avoir suggéré ça ci côté boobu noonu mais tout le temps yaa ngi énumérer li nga xam ne moom moo di aspect politique bi est-ce que du yéen a koy cautionner pour cautionner lan parce que pratiquement majeure partie yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci structure boobu ne ay nitu politique lañu waaw mais même ñun buñ ko ko am na ci ñun ñu bëgg parce que man bu ma nekkee ci chambre de commerce dafa am lu cay dugal nit. Mm. la ciy dugal mooy servir mooy comme liy dugal nit ci daayira liy dugal nit ci toog ba mu yàgg nga dugal association jàkka ne da nga bëgg dajale pour jàkka ji loolu ambition boobu moo ci war a dugg. parti politique sax loolu la. parti politique sax lool la. Mm. mais boo nee dama ciy dugg pour sa servir pour am ci dara oui. bu nee leen réforme wala bu ñu dem nee élection da nga fexe ba du dem du am donc ko bëgg a yàq waaye nag dafa am autorité bu taxaw boo xam ne nii mu mënuñu ko gis nga ñu fi organiser élection yëpp loolu laay wax toujours ministre du commerce. Mhm. soo jëlee Aïssa Agne Pouy pour mu organiser fi ay élection 2003. Mhm. mais il s'est battu avec le patronat avec des personnes yu mel ne man bëgguñ jóge seen place Amadou Niang bi yoroon ministre du commerce pour mu organiser élection yi 2010. lu fi amul amul ku ne wax na ko fi ne yaa kii nga faral kii nga def nii kii nga def nii biñ pare ay plainte am na fi lu ne am na fi organisation pour organiser les représentativités des syndicats mais le ministre de du travail il s'est battu pour def ko accepte que ñu critique ko fekk ngeen ko fi ay euh, euh, syndicalistes jóg dal ne lii jaaduwu fi président de la république pour mu organiser élection législative pour mu organiser élection élection dégg mm-hmm. suñ doon laaj maire yi fi nekkoon ndax ñu organiser mais dana am ci ñu ne buñ ko organiser parce que ñoom wóor na leen duñ gañee mm-hmm. mais loolu nag wër wër ñoo dal ñun mm-hmm. ñun dañoo am institution bi ngeen amul yéen journalistes yi ñun am nañ lu ñuy àtte chambre de commerce dafa am tribunal soo demee tribunal du commerce les juges consulaires sont désignés par la chambre de commerce. le maire. am nañ am nañ loo xam ne reconnu par la loi arbitrage. boo demee France tey état yi sax bu ñu jotee chambre de commerce France moo leen di atte te te atte bi. Mhm. dama lay wax gis nga atte. Mhm. atte chambre de commerce. Mhm. loi daf ko nangu. loi daf ko nangu atte chambre de commerce loi daf ko nangu. voilà xëy na yéen seen atte loi nangu ko mais ñun suñu atte. non dama leen di jox xoolal xam nga nga baal ma. léegi monsieur le maire xoolal nga baal ma xam nga bu may wax yéen. xam nga lan la xam nga ñun dañu jàngal. man mm-hmm. naa am iranda wala mel noonu. léeg-léeg buñ lay expliquer. dañ lay expliquer ci li ngay dund. Mm-hmm. xam nga tey bu ma ne loolu mën naa wax ne la imaam yi buñ dajaloo. am seen association ne weer wi feeñ na mais comme neex doo wari waaw am na fi ba taay am na fi mais bi fi tubaab bi nekkee. kenn sañu ko wax kenn sañu ko parce que daf ko réglementé bu nee wari nañ gouverneur mooy dem ci ku ne ne la wari nañ te da ngay wari ñaari korité mënu fi am. <laughs> alors Aïcha <laughs> waaw man man si côté boobu laa bu fekkente ne euh, euh, genre yu mel noonu am na ci biir chambre de commerce. Ah. te mënul lijjanti problème yii nii. est-ce que ah. njëriñam am am amati na solo. est-ce que dañ ne dañ ne gis nga njëriñam am na solo. ndax lu bon bon ma ngay def dara bul xool leen waaye li koy defal dara am na njariñ bu baax a baax a baax man bu amul woon njariñ ma nekk sa Kaolack nekk fanaan chambre de commerce est-ce que yaakaar nga ne mooma laajee maire bi dañ ma dañ ma ko jox dañ ma ko jox hmm. man damaa def lañ ma liggéeyal ma def ko bu ñu yemale chambre de commerce hmm. am na ci ci ëpp ci ñoom ña ngay def performance yu am doole léegi nag ndax li ko warloo ak état état bi li ko warloo ak chambre de commerce yi def nañ ko ñun loolu la ñuy wax ne état bi dafa def ba nga xam ne dafa fàtte chambre de commerce yi xamu xamatu ko te chambre de commerce ñun un démembrement du ministre du commerce lañ nekk. ñun waruñu def politique. Hmm. ñun dañoo am loo xam ne nii APIX amu ko ADPME amu ko ASEPEX amu ko. ñun dañoo am loo xam ne ñun suñ bopp ñooy gérer suñ bopp. Hmm. tey benn opérateur économique buy dugg chambre de commerce Kaolack. bu fay dugg danaan sama morom laa fi fekk sëriñ boobu laa fi fekk daf ma war a régler sama problème wala bu élection amee ma daaneel ko mais tandis que bu dukkee appi si ka fa nekk di la régler sa problème koo ko nommé décret bu ko neexee mu saaga du saaga sax bu ko neexee mooy la du ma la régler sa problème foo koy jooyee alors mais ñun am na foo koy jooyee alors beneen préoccupation bi ma amoon par rapport ak sànq li nga xam ne moom moo di euh, secteur privé bi ak peut-être euh, euh, situation bi nga xamante ne nii yéen ñi nga xam ne tey am dem ngeen ba implanté seen i mbiru bopp bëgg ngeen peut-être sénégalais yi wu ci nekk gis seen bopp comme ni ngeen gisee seen yéen seen business dox bu baax a baax mais malheureusement état du jox occasion yu bëri sénégalais pour que ñu mën a implanté wu comme li nga xam ne di entreprise étrangère yi est-ce que fois du fautu sénégalais parce que très souvent. dañuy wax ne que euh, sénégalais yu bëri dañu yaafuus wala boo leen dénkee dara duñu ko réussir autant que ni ñu ko doon xaaree ci étranger bi da ngay préférer jox ko jàmbur mu defal la ko ko nga jox ko